yàlla tuddoon na ne ku ñuy wax Macky Sall dina ko jiite. c'est le cent quarante troisième anniversaire bi moom lay fekk mu nekk ci nguur gi kon loolu cër la bu ko yàlla defal ak ñu ko jiitu ñëpp ndax fii la bàyyi laay ootee muy Sénégal gi kon cër boobu itam innal fadla bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa'u wa lahu fadlul aziim capitaine bato nag booy ñaan ñaanal ko jàmm rek ndax ñun ñëpp ñu am jàmm waaw yow mi nga xam ne yaa ko fi nekkal itam ñu ngi sant yàlla ndax noo ko seqoon daaw yàlla may nu ñu fekk ak keneen waaye nañ sant yàlla yàlla dana euh, la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sant ma dolli leen kon suñu cant gi yàlla na ko yàlla nangu dolli li si sàkk mooy fekk ay at yu bari te mu ànd ak ndam li nu gën a ñor nag mooy li borom oote bi wax muy jàmm ba fa mu tudd mu tudd ki jàmmalaay mm. jàmmalaay loolu yàgg mu ne euh, bu leen nit dabeeku dog seen kurus for leen seeni per te dem bu bañee ne du ngeen for per yàgg bàyyi leen per kurus bi uti beneen kurus xam nga kooku jàmm rek la bëgg waaw jàmm nag ci la lépp xaj mm-hmm. ñu koy ñaan yàlla bi ñu jullee sànq nu ngi koy ñaanal réew mi yàlla na nu ko yàlla defal di gërëm service yëpp boo leen ko ci jàpp rek yenent bi daan wax ne si wàccuwaay démb mu ne wërsëg ñett yi rek nga ci am mm-hmm. li nga lekk mu rees li nga sol mu ak li nga dawal ci sa bàmmeel mm. kon occasion yu mel nii lu ci waay def bokk na ci li nga dawal ci sa bàmmeel kon yal na yàlla fay leen ne yàlla fay du la liggéey la waaw ne waaw mu ne ndax fay ak yàlla mu gën nit waaw ndax ku yàlla fay nga teg sa waaw ñun li nga liggéey juste moom lan lay fay <coughs> waaye yàlla da koy ful ba fukk fay la ka nee na moo boobaa day kas saw naa ah benn rek laa liggéey yàlla nag ma koy fokk kon yéen ñi si jàpp ñëpp yàlla na yàlla defal leen ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant sunu xol xolu xalifu bi sedd na ci ñoom yal na yàlla fayal na leen yal na sama borom may leen ci xéewal ñu appel ak jàmm dugg ci bismillahi rahmaan rahim jeexale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm li nga def nii tey dafa dafa dafa touché waaw ñu arrêté liggéey bi parce que yàlla moo soxla nga ne leen dem julli ji ñëwaat loolu lu yéeme la waaw yàgg naa ñëw réunion nationale yi waaye nag vraiment tey jii moom def nga loo xam ne yàllaa ngi na ci jom ñun bu ñu ko yëg ñu nit yi diine hmm. hmm? kon xaw ma lan lan kon hmm. xaw lan lan waaw parce que nit mooy rek mooy mooy ko rek ci ma naan ay nan laa koy dara mais yàlla dara mënu ko tey temps boobu ñu def julli ko lu ñu fi mën a rëcc rek yàlla si bopp mën na ko indi boole kaat lu ëpp luñ ci yaakaaroon ndax ayuba ba yàlla jeexal ay nattoom dëkk delluwaat am amoon ba pare dolliwaat kon lii nga def nii bëgg naa ñëpp jàng si sunu waxtu yàlla yu fekk rek loolu ñu jàppoon ñu bàyyi ko julli bu nu paree eggali te xam ne bu nu fi yàlla bàyyee ba nu fekk ko sax bu nu ko fekkee yàlla la ne mm-hmm. bu nu ko fekkee mm-hmm. mën na liggéey ba liggéey bi rafet ba bés ba ñu wuute da nga xam ne moo yor suñu bakkan moo ñu fi mën a bàyyi ba nu fekkee te itam bu la nga xam ne moom la ñu tëral lépp yàllaa tey mën a ànd mu sotti kooku moom ba soxlaa lu nu jàpp dañu koy bàyyi suñu paree delluwaat ci suñu bopp loolu mbir la moo xam ne ren jii ah lu rëy na sunu yàgg naa fee ñëw say naam yi defe naa yàgg nañ fee ànd <laughs> waaw muy lu am solo lay ñaanal yàlla ah jàmm bi réew mi nga xam ne moom la secrétaire bi réew sa loxo ak salaamun yooyu ñu def def yàlla la topp rek bu tàkk rek sama borom fay ko barke yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim xam nga bardan ji rek sedd mën na rey waaw salaamun bi ëppee ñu ngi ko waxee sànq sa biirum yàlla boole jàmm sedd ak jàmm yal na ko yàlla defal ci réew mi ñu ngi lay yóbbante ci président de la république itam nuyoo boo xam ne mu ngi jógee ci xalifa bi dem ci moom ak i ñaan ci li nga xam ne noonu la ñuy accompagner di ko accompagner diine ji yëpp nag waaw yal yàlla fayal na ko ñu gërëm mboolem ko fi teew wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu kon ñu bàyyi Seydina nga xam ne moom jiitu monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi nga xamante ni sëriñ bi joxe na kàddoom yu rafet yi mu def moom mu ngi koy nuyu bu baax di sant ndax nag looy def ba muy bëgg àgg ci fanweeri at kooku war ngaa sant yàlla waaye santit say waajur la important comme ni ma koy defee rek toujours parce que ñi fi toog ñëpp di ay doomu sénégal damay wax ne ku ci nekk yaa nu gën sawar sax lii rafet ñun loolu lañ leen di xoole parce que mi ngi bëgg a yàgg te ku ni yokk woo da wax lu la neex sëriñ bi wax naa fii defe naa ni ci CRD bi fële boo seqee kilifa ay ati at ngeen di jëf dinga xam ku ne loo def ak ndàngam loo def ak fooyam ak ku def ak ku def te ne ci jamono joo xamante ne ku moytuwul julli lañ doon def léegi yalla lañ ko doon defal mais hmm. di nga tourner summi sa manto ragal nit te doo defal yalla mooy nit boo xëyee di def muy def muy def te ngay gis ci li doon def mu yokkute ki deful naan naan bul wax ni def na seetal sa bopp yow nga ko sànq hadisul qudsi wax naa ko defe naa ni daawud def na ko ci lancement bi et c'est important parce que tim nag loolu dafa nekk samay loxo ati at ñu seq kilifa muy gën a yokk suñuy nangam su ma tëddoon ci bàmmeel ñu laaj ma ko kon moom bu taxawee am nañu fit ni diw moo fi def lii la communauté laayeen ci li ma xam bi ma yoree loolu ba léegi buñ ma doon def loo bilan ci ku fi a jaar mas a def nga lu baax mais li Macky Sall def ci communauté laayeen bi fi ñu toll nii wallaahi wa taalaay ni defu ko ça la vérité donc loolu ci lay tàmbalee di ko wax ñii xam nga li ngay wax nii fii bari ñi dugg na feneen dugg na feneen dugg na feneen dugg na kon bu àndee kilifa ngeen di def fa ma bi ni amati rabbika fa xaddis la alxuraan wax dañ bi wax naka sànq ku la nangam gëm nooy gëm yàlla parce que yàlla kenn gisu ko ku gis yàlla lu mu reere ak lu mu sol mais ci nit ñi lay feeñ kon loolu lay jëkk tàmbalee di la nuyu comme ni mu ko ni ko sëriñ bi waxee nuyu nag commandement bi defe naa ni yaa ngi monsieur le gouverneur ak équipe am bi mu àndal bépp nag macha allah bépp ñu ñi nga xamante ni vraiment nos forces de sécurité profiter ci pour les saluer et en même temps vraiment remercier leen ci seen taxawaay bu am solo rawatina nag ci contexte bi nga xamante ni nag ñu ngi koy dunde kon yàlla day moo yore nangam waaye da koy jaarale ci ay nit kon yeen tim nu ngi leen di gërëm di leen sant du ci sunu bis bi rek dedet bis bi lenn la ci sénégal li am solo Moy rew mepp ci karangem ñun bu nu karo te seer bi du dem ne yalla kar rew kaaraange gi ci rew mepp ñepp am jam kon ñu ngi leen di gërëm bu baax suñu commune d'arrondissement commencé nak par la ville de dakar ñoom itam ñu leen di gërëm di leen sant ñoom it machallah allah certes ñi ci opposition commune yu ndaw lañu ci gis-gis mais nag itam mu gudd mu gàtt am nañu ay taxawaay ñu koy génn kon loolu lépp itam ñu ngi leen ci gërëm gërëmit suñuy taskati xabaar wax ngeen ko sànq macha allah accompagner nañu na mu gën a rafetee mais terminer ci comité d'organisation bi dama bëgg a wax nii dafa am set communauté groupement central bu fekkoon ni administration lañ ci ñun mooy administration communauté layène

ñoo gën a mat a ñaanal bu baax a baax a baax nit ku war a mën na bàyyi njabootam ay ñetti fan nangam la nekk ci say service ak service loolu te yow boobu yaa nga nangam kooku ku taxaw ak ñoom di nga leen di jërë ngeen jëf et ci des sëriñ wax na ko sànq monsieur ministre jàmm xam nga li gën a dangereux actuellement jàmm dañ koy xewal ñun te yàlla mooy asalaamul muuminul muhaymin noonu nag jàmm ay période la bu jeexee na et booy seet itam jàmm ji pour benn catégorie de personne la ndax Sénégal nous sommes 17 millions de Sénégalais ndax fukki nit rek ñoo war a am jàmm ci ay période bu jeexee ñu ñëwaat ñeneen ama jàmm non jàmm day lekk jàmmi Sénégal yi yëpp c'est ça vérité et puis jàmm dañ koy gàtt nga donc kon jàmm jooju réew jàmm na ne ci conscience yi jàmm na ne ci xel yi jàmmaat nañu ko bëgg waxtu wu ñu ko bëggee te xaqiiqatan yàlla tàllal nu loxoy jàmm te nag yaakaar naa ne mënuñoo dem fen wala yëkkati lenn wala projet bu mënti doon ci newul ci dans un climat quand même nit ñi ku nekk ndàngam sax du tee nag ku ne ñii dañoo bëgg ceeb ñi bëgg cere ñi bëgg leneen mais xam nga lu boole nit ñi ñoom ñëpp ñi bëgg ñëpp bëgg moo leen boole gis nga ci bëgg. la nit ñi ñi bëgg li ñi bëgg li mais il faut que bëgg nekk kon nit ñi ñoy mëna andando bëgg jamm taxawal jamm ñaan jamm yalla da di buur boo xamee ne bu mandu la ya yalla du ku ñuy du ku ñuy xaar yalla ya kay fekk toujours mo ko yalla ku ñuy xaar dedet yalla ku ku mu ñu si da lay yóbbu yàlla koo ñu ne yalla fa dess yalla ko mu ziar ci yobul la malakal mawti la mais yalla nak yow yaay gat yaay jog daw wuti ke mu gatandu koko yalla donc kon lolu moy li nga xamanteni mo fi ma gis nga bu tuñu ñu nangon te ciiri te mu yalla rek ñepp noppale dañu nekk dans cette kon ñuy sante di gërëm bu baaxa baax nak tous ces cadres sénégalais là yi fi nek day doomu sénégal nak ci fan yépp bi ci dess fi may tejé réew mi lañ sénégal réewu sénégalais yi la jullit ñeeg jàngu beeg ñépp ay doomu Sénégal lañ donc ku ci ne la la diine jox doxalal sa diine kee doxal ko bu ñu ñëwee ci pénc mi nag pénc mépp citoyenneté dox fa ñu war a mën a téye suñu réew ku ne la la yàlla man loo nga def ko li bon jéem a def loo man ko defee yàlla nu yàlla defal loolu ñu yeesal nag monsieur le ministre ci sant jëme ci yow bu baax a baax a baax nag parce que mi ngi bëgg a nàngam ak équipe bi ak yépp ci disponibilité bi ak it ubbeeku gi ak ci lépp kon yàlla na yàlla gën a defal nangam nu ngi daal nuyu président de la jaar ci moom it nuyu am euh, monsieur le premier ministre ba wàcc si kilifa yépp nag di ñaan yàlla yàlla na yàlla macha allah lii ñu sumba yëkkati ko yàlla nay deer niiri xéewal ci ñun ci suñu réew ak ci sous région bi ak ci àdduna sépp allahuma salli ala sayyidina wa sallam